ba tax ba man Babacar xam naa ne maa war tax ba man Babacar xam naa ne ma war a raw mbooleem ku lay sant ngir yow rek yaa ma teral sëriñ bi man bu ma santee sant bay bëgg ba ngay jàpp yëf di ma jox yow mii te doo xama ba sëriñ bi man bu ma santee sant bay bëgg ba ngay jàpp yëf di ma jox yow mii te doo xama ba man mii dama war a jóg tey sant sant ba dee ngir moo di ngor te lu dul ngor ab julit na ko ba yow yaa ngi may jox te xeeroo yokkiwoo bayiwoo kon nag na may deeti yokkeetee ka xaaraka ba yaa di julit yaa di as yaa di ngën ji sëriñ te yaa di ab yaaramit jiitul nu yey bunu ba sëriñ si ak seeni mbooloo ngi nga boole yili mbooleem ku fiy toppe ak ab topp yaa ko fi ba kenn toppatul ku la moy kenn jàppatul lu la mooy yaa jàpp sa sang yor moo tax ba kenn du la ba yaa jàpp yàlla bu wér yaa sànni lu ko mooy yaa xajji lor ba mu dem yow kenn dootu la ba te yàlla kenn la deesul seer mu ku kemam yonen ba kenn la ngay kenn nit ku xam du la ba yonen ba ak yàlla nag yaa làq seeni ngërëm yaa saytu it seeni yëf def baa di waajala ba koo gis mu weesu la it day dellu seeti fi yow te naa la may ma ndigal man yaa ma doy bu ma ba ku dem fa yàlla te àndul ak yowit du ko wax lu dul demal toppi waa ji sang bee nga fa ba koo jàpp yow yàlla ak yonen ba dal ko ngëp koo jàppulit yàlla ak yonen ba dal ko ba yal na nu jàpp te yow mii yàlla boo nu bayit te yal na ngay yenoy yor mbir te doo xama ba yal na nu jàpp te yow mii yàlla boonu ba it te yàlla na ngay yora yor suñ mbir te doo xama ba